mais mais dem gisuma ko si safar bi. Ah! waaye loxoom ñëw na. ah. Eh, loxoom ñëw na. safar bi gisuma. safar gi lay wax safar gi de. mais mais Boucher man man damaa voyage. waaw daal loxo bi ñëw na. ah loxo bi ñëw na. yaa ngi ne loxo mooy Sonko. ah, ah Sonko mooy Jokalante. <laughs> Girib mooy Boucher Boucher mooy Girib. mais mais eh, non Boucher barki sëñ ak am classe. yéen ñi yéen ñaar la eh, mais mais yëpp xam nga xam nga mooy problème. ndaw bu ne. biir hmm. États-Unis wala nga ne di tukki wala ay móodu-móodu rek. waaw ah. da ngaa war a roy ci ak man mhm. man sax génne naa ci sama bopp ndax mhm. maa def ñuy gis kii ngi def ñuy gis mhm. kii yor na lu mat mille places biir Atlanta ah. mille places dem naa ci place am biir Atlanta man mii dem naa fa dit waay place yi bu ci mi ngi jaar ay centure ak ay marque de classe montre ak ay parfum ak ay ay t-shirt Atlanta Atlanta te lépp ay employé sénégalais ak ñag ak tubaab ñoo fa ndeysaan kii ci moom biir Amérique daf fa yor ay employé tubaab tubaab laa la wax Amérique ay tubaab waaw di leen fay seen weer girif mi semaine léegi Amérique ñëpp bëgg am jom ñu am jom waaw mbay mbay tey euh, tey buuse yàggul Amérique yàlla dimbali ko moom citizen yàlla dimbali ko mooy lii su ko defoon su ko defoon dafa def de ndax ni Amérique Amérique mën a protéger say business du Sénégal ñoo koy protéger de Sénégal lañ yàqal mo gëna yom ñu defaral la. dëgg la te su doon Amérique tey ñaanu ma yàlla lo yàqalu ñu fay la. dañ lay fay. mais bi de soo yàqalu ñu fay. bo fa amé business rek bo yobbo kayitu business ci état bi. mom mom dugaloon na benn affaire ben entreprise Amérique. bo fa amé business comme restaurant bi ma fa am. bu mako yobbo ci état bi. état bi daf may dolil xaaliss bu bari pour ma mëna créer gëna créer ay emploi pour ma yok restaurant bi pour pour pour xale yi mëna liggéey pour kenn baña taxawal mais bu sa sa benn ji ji ji ji damaa loolu damaa dem fële damaa dem damaa dem Mbour jënd ñetti dibiteri yi. bokkul sama bañ a di métti. ma toog ba démb démb yàpp ma jënd Mbour ma toog ba si lekk ñaari morso rek. ma ne booy ñii dañoo yawaat. ñii xanaa yàpp dañ koy. te yow doo caaxaan yow moom lu la ñu def nga wax. non non mais mais mais mais mais yàpp dafa nooy. parce yàlla ndax ki lay lakkal nii ki lay lakkal nii. Mm-hmm. papaam moo nekkoon champion yàlla digg naa daa gaañu. dëgg la waaw daa gaañu waaw yàlla mooy yàlla xarit. Tidiane gaañu na kooku ay jamono ku demul dimitri lekkoo yàpp. dëgg la léegi doomam tey ñëw dina lakkal. waaw tey loolu loolu loolu. ki dàq lakk ki dàqoon a lakk dibi Sénégal Ndiaye. Sénégal koy wax si àdduna te xam ko. waaw Tijaan doomam moo lakkal man hmm. doomam. mooy su passé ah, la hmm. naa suñ ordre wuñ ko. mais doon fees dalak hmm. moo may lakkal sama dibi ji moo tax sama dibi mel nii. kii euh, kii la ay taf dim Dubaay xam nga Dubaay sax ay moto la ñuy rey. waaw waaw waaw ay mbur mbur xanaa ma ne réew mi sax dañoo war a ñëw xool ndax moto yi muy rey moto yi muy rey am na droit rey ko. waaw Dubaay ay moto la ñuy rey. yi ah, duñu rey duñu jaay xam ay mbur la. mais monsieur moto ngay jaay ba di si génn. non doo ci génn mais mais da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay def fier sa client yi rek. non xam naa parce que parce que dama gis ne xar bu ndaw. waaw doo ci ba pare dañ lay peese waaleel bopp bi peeseel la biir yi peeseel la tànk yi lépp day nekk ay 5 kilos ci xar yi mais yow da nga koy perte mais keroog jël nga fi 3 euh, kilos rek. sama kanam jël naa fi keroog baxal. ah ceeb mais nag dama bëgg dama bëgg dama bëgg. ànd sa yëpp su benn. non ay caxaan de. boo demee Sali dama koy mais kër gi kër gi ngay tabax Sali yaa ko moom. may yow kii loolu gën a ndaw say kër. may may xanaa mu de liggéeykat la. mais gis nga gis nga këram gi nekk Wakaam. dama faa dugg ci may man damay dugg ci may man damay meebu rek bàyyi ba bàyyi ma. su sali pare dama lay invité nga ñëw. nga xam ne tey euh, ay jeunes yu nekk jàmbaar lañ. ba pare nga indaale loo sangoo piscine. Ah. te poussé di ñëw foofu ñu indi foofu benn. waaw loolu moom dama mais kër gi nekk Wakaam nag yow. kër googu euh, bàyyi jàmm mbay. ku bali dinaa la yebal fenn nga dem fa. fan la. Euh, Kunu. Kunu laa la yebal nga dem fa. Ah, Kunu ah, comme ñu laa la yebal. nga xool ñaar nit ñi koy liggéey. comme ñu laa la yebal Kunu nga dem xool ñaar nit ñi koy liggéey. Mm-hmm. dañoo ñu ñuy liggéey xooluñu dara quoi. maa ngi liggéey rek mbay yow yaa liggéey. waaw nañu <laughs> yow yaa liggéey du Sénat rek. liggéey de. non Sénat lii dafay fay de mbay mbay xeet na chaque weer huit cent mille. aye ah, eh? mi ngi nii maa ngi wax ak yow tey <laughs> tey maa la ko wax nag. c'est vrai mais mais dégg naa daa war a dem Dubaï. Eh, non non mais monsieur mais monsieur mais monsieur next time soo tukki wàll yóbbaale ko Moussa la yóbbaale te waa ñun dañuy sosono ticket euh, ticket nga sosono ah béy bi e Moussa maa ngi si Moussa eh, maa ngi ñëw waaw mais damay xaar maa ngi ñëw maa ngi loolu moo xoon barki yàlla maa ngi ñëw kii mon ami mon ami xool damay fay ceeb bi damay fay ceeb bi eh. non bilaay damay fay ceeb damay fay ceeb bi non non damay fay ceeb bi bilaay damay fay eh, ceeb bi ñàkk sama ndey maa ngi ñëw léegi damay fay ceeb bi gën maa ngi ñëw bilaay maa ngi ñëw ba pare xool dama dem sangu ba set gaare ñëw gaare ba ko rafet eh Mbaye doom day jëlal ma fa dem ah. mooy bii. ah li may lakkal di. papaam a dàqoon lakk di xam nga su ma du ma bëgg di wax yooyu yëpp. papaam Sénégal moom Sénégal papaam a ci dàq lakk di. tegal la. sama xarit bi. papaam a ci dàq lakk di léegi kooku doomam moo may lakkal di. non Griff seede na ko. ok Griff seede na ko. kii bi kenn teel a commandé rek am dara. waaw lan la woon. waaw daa ñëw ah mon ami ah vidéo gi nii kay mais këtëm dina la jox lu màggal de baax na këtëm dina la jox xoolal <laughs> njàppandal transport bu xoolal la ilaha illallah dañuy compter xaalis bi xaalis bi dañuy compter xaalis bi lañu compter eh dañuy eh dañuy compter xaalis bi nga naan eh dañuy compter waaw yow dugg na maa dugg de ah waaw yow dañuy compter xaalis bi. Fadam jëluma liiru jëluma la barki Sëriñ Tuubaa jëluma liiru eh kay wax jëluma la ah waaye waaw man de man rek maa fi nekk. ah ah. eh père moytul moytul micro bu am lu. bu bu bu la. Euh, bu am lu ñuul. ñuul li ak lu weex li. waaw da lay dugal. mais daa la xamal tuuti. barki Serigne Touba da dugal. mooy safaru tay jii. waaw. ñëpp kontaan nañu. wuy ma. Uh-huh. eh. Uh-huh. safaru tay gi ñëpp kontaan mbay. ñëpp kontaan nañu. kii. def na loolu solo. mbeer mbay mari mais père sa oto bi sa oto bi maa ngi koy dégg de sa oto bi. Ah, ah, ah baax na. Ah. sa oto bi maa ngi koy dégg de. ah kon sama loolu transfert bu diis la. ah sama émission transfert bu diis la. sama émission ma njëriñ bu diis la ko. ma ne oto bi yëg naa ko de Mass. oto bi yëg naa ko de. woykat bu mag mi ngi koy jox oto. mbay bu magal bi avancé. ah ah ah nañu woo rek xool. ah nañu woo Ndiogou Mbaye rek. Ndiogou Mbaye ay eh, Mbaye Ndiogou fan. oto bi.